باسم الإله ينمو لحائي بلا مناحي ولا انتحائي باسم الإله ينمو لحائي بلا مناحي ولا انتحائي حمدا لربي طيب ربي ñoo ngi fii toog fekkoog Serigne Mamor Mbakke moom Serigne Massamba di ñaan yàlla sama yàggal ko ci kanam njaboot gi ak magam ju baax ji ci barkeb Serigne Touba barkeb ma Massamba mi ngi nii toog feggoog magam ju baax ji te li tax mu fegoog magam ju baax ji magam ji du wax mukk mu ne ko loo wax la tax loola da koo jige lool ca bëgg ko lool ca di ko diglu loolu nag ca nu kilifteef loolu nag nu koy ñaanal yàlla sama mu yàgg lool ci barkeb ma Massamba eh, kon nag ñu wàcce suñu kàddu Serigne bi yëkkati kaddoom ci bisub Serigne Massamba bii di sëriñam ah ñun ñëpp ñu bokk maa si ko sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ne wax ji du gudd. ndax ne ginnaaw jaar ngeen fa kilifa ga sëñ Moustapha. ne muy Seex Masamba ci ñun. di soxna Aminta ne soxna euh, soxna Aminta Amar ci ñun. ne ñuy déglu ndigalam. ne bu ngeen fa xasee jaar. ne soxlaatul ne muy wax dara. nee lépp mate na ci moom. nee bis bii nag li ko waral mu bisub sëñ ma sàmba nee pàkk bii mu ne. nee ma. batul bii fukki meetar. nee fi laa toog bint gu mag. nee mu xëy jàkkaam jee ci kër gu mag ga. julli fa yoor yoor. nee ñëw fii. fi ko ñëpp fekk. néeg mu def la woon fii. nee néeg bii mu def la woon fii. def na ci aynu rahmati. nee def na fi aynu rahmati. def na ko ci. def na ko ci. jóge fi. jóge fi. wuti Saalum. wuti Saalum. fa xew-xew ba xewe. fa la xew-xew ba xewe. lañ ko wàcce fi lañ ko wàccee. waajale ko fi waajale ko fi. muy pàkk bii muy pàkk bii. nee muy pàkk ñu ko fi ñaanale. kon nag. la mu nekkoon. nee la mu nekkan. nekk fa ak nekk fa ak ba. nekk ca sëriñam nekk ca ak sëriñam ba. magam ja magam ju baax ja. xaadim rasul xaadim rasul. muy ci ndigalam. nee muy wéy ci ndigalam. te ko tere dara. nee te du ko tere dara. def ko loxoom nday jooram. def ko loxoom di jooram. lam daan digle rek. daan digle rek. nekkoon ca rek. nekkoon ca rek. loolu la ñuy fàttali. ñu fonk salawaatul xamsa. nee nañ fonk salawaatul xamsa. fonk weer wi dugg si. nee fonk weer wu tedd wi dugg si. fonk. kilifteef nee fonk kilifteef. fonk waajur yi. fonk waajur yi. ca maandu. ca maandu. nee di wax lu rafet. di déglu lu rafet. nee di déglu rafet. seetaan lu rafet. nee di seetaan lu rafet. nan ci sax rek. nee nan ci sax dàq. cay tuub. nee te yéeneen te jàmm. kenn ku ne. kenn ku ne. la nga bëggal sa bopp. nee la nga bëggal sa bopp. ko sa morom. nee nga bëggal ko sa morom. di xool sa ayibu bopp. nee di xool sa ayibu bopp. bañ a tudd ayibu jàmbur. lépp jàpp lépp jàpp ne. yal nañu ko yàlla defal ko yàlla defal. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. dégg ngeen wax ju am solo jooju sëñ maam Morum sëñ ma Samba yëkkati dégg ngeen ko ci yar beeg tegg na mi ak wane taalibeem gi mu doon mhm. wax dëgg yàlla mbakki ñuy ñaan yàlla sa borom suñu kanam ndaxte dégg nga nee nga ba ngeen jógee ci sunu mag ju baax jee rek ah dëgg-dëgg mu teew fi teew suñu Masamba tuwaat fa kal ci mate ko sëkk foofa rek doyen na waaye nag mbàkke ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi wa nasiri min fidai la aqtirabi bil aqtirabi la xuqita bi ma